waxtu këppoo ni ma ko déggee. Mm-hmm. Ah, yàlla moo ne woon boppam de. image image yaa ngi nii. image image te sapeur pompier itam. gis nga. sauver ou périr la ba pare man. war na bu leen woowee mati. Mm-hmm. bu ñu leen nekkar 18 boo ko nekkar rek war naa mën a jóg. mais mm-hmm. ma Aïcha souvent aussi sapeur dinaa leen défendre foofu tuuti Asiba. parce que indiscipline bi am ci kaw tali bi. dem na ba oto wala ambulance bu taalee. Euh, euh, kiiwam di daw duñ ko sax faale. wala embouteillage bi waaw foo dégg rek ambulance di yuuxu mhm. wala wala wala oto sapeur di yuuxu mhm. oto yépp dañuy wàcc tali bi may ko mu jàll mais léegi indispline bi am ci ci kaw tali bi kenn dawaleetul code de la route code de moo fi am mhm. est-ce que tamit loolu jotul nit ñi jël ci ay ay mesures et que projet bi ñu am xàllal euh, terre bi fu mu aw xaalal euh, euh, euh, beneen bi nu mu tuddati sax. BRT bi fi mu mm-hmm. jaar est-ce que jotul. ñu xàllal li nga xamante ni moom mooy ambulance yi fu ñuy jaar parce que kaw tali bi sóoraale nañ ba sóoraale fu moto war a daw est-ce que kon jotul ñu def projet boo xam ne ambulance yi dañuy am seen yoonu bopp. Mm-hmm. mais loolu dafa waroon a am bien avant que ñun ñu taxaw fi sax di ko wax. Mm-hmm. parce que embouteillage dafay am. oto yi dañu bëri Sénégal. Mm-hmm. te am na heure yoo xamante ne heure de descente la munoo weew weew weew weew ba ba ba mën a jàll ci kaw oto yi. soit mm-hmm. dañ lay may nga jàll wala duñ la may nga jàll. Mm-hmm. léegi nag loolu lan moo koy faj nga am route boo xamante ne spécialement pour sapeur pompier la. mais aussi sapeur pompier buñ leen di woon nañuy ñëw. mais Maty dangay woote duñ la wuyu wala ñu ne la waaw toog ba mu neex la récemment lakk bi amoon seen wetu kër mm-hmm. sapeur na la def te bañoo dañoo fay lakk ba pare mu ñëw lakk mm-hmm. mu ñëw mu door a ñëw branché ay rakolom yu gudd neen day fay lan lay fay <laughs> yow loo xamante ne fekk nga ñu fay lépp lan ngay fay mm-hmm. su fekkoon tey jii nii am na ay nit yu fa nekk nan nga leen di sauver mënoo leen sauver mënoo leen sauver quoi qu'on puisse dire nag euh, état bi comme ñoom changé système lañ fi nekkee nañu raxasaat tali bi parce que tamit dawalu reewande bu ko am ci dëkk bi. ak oto yi carcasse yi. Mhm. carcasse yi bëri na. parce que bus bi boo ko xoolee rek déjà tas na mais tas na avant muy def choc. Mhm. Euh, visite technique mati. Mhm. n'importe qui lañ ko oto n'importe quel oto lañ ko war a jox. léegi nag euh, da ngay romb oto mu ne la am na visite technique nga le mu leer na ne oto bi waru am visite technique te dañ ko koy jox visite technique bi. région dawal région région dañoo war a am heure bu ñuy daw ak heure bu ñu daw. defoon nañ ko fi ñuy kaas naan non waruñu ko def lii yenn yu mel ni moo tax parce que sa digg àll bu fa accident amee ñan ñoo lay mën a jàppale accident boo xamante ne guddi la am 3 mhm. heures du matin foofu fan la la ambulance di ñëwee ak fan la la yebee balaa mu laa ñëw euh, sauver la fekk nga dee mhm. nguur gi ki nga yor wàllum transport ki nga mhm. xamante ne moom moo xelam wàcc ci wàllum transport mu am heure bu nit yi di dem daw ak heure bu ñu daw Dakar Thiès bi da ngay gis benn borom oto war gaynde di ci daw loo xamante ne sa bakkan bi ci xotte lay wax moom la du la wuyu sax war ngeen xam naa si dara <laughs> du la faale léegi nag li ñuy dénk ministre bi mooy mhm. bus yi nga xamante ne dañuy dem jóge Dakar dem ay Tamba mhm. Ziguinchor Louga yooyu ñu am heure ñu am heure minuit wala 23 heures fu mu xasee ba jot. bépp oto yi nga xamante ne def long voyage ñu arrêté ba 6 heures du matin ñu mën a nelaw parce que chauffeur bu nelawul. mënoo dawal boobu loolu bi ko fi Macky Sall ba tey bi ngi daw. Mhm. soo demee boo maraîcher di jëm xas nag maa ay du matin jotul 5 quelque oto bi du génn de. Mhm. bu dee particulier nag. Mm-hmm. moom dina dem. parti lépp la ñu war a. ba pare camion mali yi li ñuy def ci réew mii ci yoonu njaa mbuur week te mm-hmm. Fatick beeg. mais daal dañuy dawale nu leen neex daal. Mm-hmm. te nu wax dañuy xool oto yi da ngay jël ay weñ taqale ba mu doon forme oto nga dem jënd sa. moteur li ma mën a dugal ci biir. mate li may ñëw ci biir boo xam ne ma ngay volé. <laughs> tuuxi boonam naan ay vin ba yàlla may ko jàmm du takk nag ay écouteur kii bi di ko teg. ak itam mati. Mhm. oto yi nuy def télévision. Mhm. ngay dawal di ko téye di ko xool. du pour sénégalais de. Mhm. du pour sénégalais parce que amuñu yar boobu. ak discipline boobu ba war koo man a def. mënta ne mais mais mais maa Aïcha aussi bus yi gisoo ni même lu ñu baax baax dañuy abuser ci seen ay bagages parce que léegi léeg na nga gis bus boo xam ne dafay yeb ay nit ba pare weng ba nar daanu ci suuf te nit yaa ngi ci biir ndax bagage yu bari. ana policiers yi nuy romb. ah yi moom. yow da ngay natt natt boo dul teggi rek chaque jour natt bee tax natt bi moom tànk yaa ngi natt controle bi du efficace. moo tax nag nit ñi di dee. natt bi moom 2000 yi moom kooku kooku foo romb joxe fa sa natt 2000. loolu la ñu war a arrêté Mati. ah parce que diggante Abidjan ak yaa Yamoussoukro boo cay daw. Mhm. doo gis policier bu taxaw de. parce que du am bagage ci kaw comme fii ni ñu yebee bagage yi yëpp ay xar yëpp ay vélo ci kaw ba mu fees mhm. foofu amul loolu bala ngaa génn garage bi da dagg bagage sa bagage yi ci suuf lay nekk mooy portière mooy fi am pot mhm. kii bi bu xasee ba fees dañuy tëj ba pare fii doo fi gis chauffeur bu incorrect mhm. boo xamante ne lu ko neex lay xam nga chauffeur da nga war a euh, correct am sa tenue boo xam da ngay gis chauffeur bu sol déchiré baa mu sol ne day dawal da nga war a am tenue boo xamante ne mais Sénégal mënoo leen a mënoo leen defar ba ñu baax parce que dañ leen wax kaa leen baax ñu ne déedéet dañu kaay ñu bon. Mhm. chauffeur da nga war a correct. dañoo respecté wul individu doomu aadama ci boppam. te man sénégalais respecté nga yeb plus de euh, quatre vingt personnes di dawal nu mu la neexee tali bi quatre vingt bakkan. te bus bi nga xamante ne moo doon dem Koungheul ay xale la yëpp ak ay xale jigéen. ay bébé ndeysaan. ay ba pare ba pare nga daan ay bu bu bu dee amee nga ni ndogalu yàlla la. waaw yàlla mun naa dogal lool de mais am na ñoo xamante ne ñun ñoo koy provoqué. Mm-hmm. ca Dakar Thiès bi donc des fois sama bakkan bi ci xott nañ lay nekk. Mm-hmm. parce que da ngay gis oto bi di doublé. Mm-hmm. di wallaxu nii ngay wax moom mun naa la non dama koy kii. doublé ba doublé troisième position ci virage. Ah. loolu la loolu la loolu la chauffeur gi xewal léegi. ah waaw euh, maa Aïssa tey loo yaakaar ne. Hmm. Euh, buñ ko defee à ay téeléen ñu bañ a daw bëccëg géeg ñoomin seen loo xalaat ni bu ci bu ci gouvernement bi taxawee euh, accident yi mën na wàññeeku donte mënul ñàkk sax. Hmm. def ay post yoo xam ne fu oto bi déparé. Hmm. ak fu mu mënti jóge horaire bi. dina am fu muy jaar par force. wa illaa loolu du dugg ci du génn bay jàll comme ni nu def euh, appayage bi xam nga boo boo yorutee loo fayee boo yoree carte te carte bi doxut xam nga barrière barrière bi du dem mukk nu mhm. def lu mel noonu bala ngaa ñu wut ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci oto ñu xool oto bi war naa dem wala warta dem pneu bi def na nii wala chambre bi def na nii mhm. wala paanu vilebrequin wala nu mu tuddati bi ci su amortisseur yi wala dara mhm. ñu xool ko frein yeeg yooyu mais commerçant yi aussi bu ñu jëndatee seen bagage yi est-ce que du ñu ut oto bagage fay ko. déggoo li ma la wax ñi ma ko war a wax sénégalais ci boppam moo respecté wul moroomum sénégalais am mm-hmm. respecté wuñu kenn. moo tax ñuy def li ñuy def nan nga yebe quatre-vingts personnes comme les Asiba jël ay bagages. gën a teg ci kii bi Bartolo Joola lan moo ko suuxal. Mm-hmm. lan surcharge. wallaay bag bi ci Banjul ñemewu ko surcharge. dafa am fu mu yem. nga yëg dem. Mm-hmm. te Banjul gii rek ñun ñoo leen ëpp. mais dañoo redressé seenum réew. Mm-hmm. waaye ñun moom moom moom moom moom vraiment war na noo xoolaat sunu toogaay. Mm-hmm. xoolaat li ñuy def bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. xool ñun ñooy kan li gën a bon ci àdduna mooy di dawal yor téléphone. munoo boole di xool tali bi ak di yor téléphone bi. yaa boo bu da ngay gis sax koo xam ne day jub policier daal dina la maa ngi jub policier bi coupé bu rombaatee policier bi woo la loolu nan lay réglé woo mm-hmm. loolu bu ñu amoon ay di de surveillance yoo xam ne Europe doo ko def doo ko def sañoo man def naa ko benn taximaan ma ne ko yow ngi wax téléphone de mm-hmm. yaa ngi concentré wul ci li ngay def xoolal day daw ba mbëkk beneen oto ci suuf gi oh. ma daal di wàcc nu di leen constat ma arrêté waat beneen taxi dem sama yoon ndax du ma tàddeel sama bopp mm-hmm. lan lay tardeel tardeel seen bopp. ñu ñu joxe numéro téléphone bi Asiba balaa ngay ñëw foofu 77 964 07 02 pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo ngi ci direct bi ñi fare bitim réew aussi am ngeen possibilité daal di woote ci WhatsApp bi parce que numéro bi am na WhatsApp waaye ngir yàlla yéen ñi nekk Sénégal woote leen ak seen crédit ngeen bàyyi WhatsApp bi ak waa extérieur du dëgg. Asiba loo gis comme solution actuellement ci wàllum accident yi parce que bu dul bi oto yi kaw pont mais kaw pont nga ciy daw ba daanu. yar woo en <laughs> li nga xamante ne war nañ ko établir moom mooy déjà tali yëpp ñu def ci caméra de surveillance. Mhm. mooy benn solution boo xamante dañ ko war a indi. Mhm. ku dawal loo warut a dawal wala vitesse normale jarul sax ñu lay arrêté ki digg tali bi di def ay créer embouteillage. Mhm. nañ la fekk ba seen kër indi la amende boo xam ne boo ko fayee su bëri yoonte booy dawal ci tali bi. dootoo ko dootoo ko. wala ku def accident deuxième chose. bi nga boo reyee ay nit ñu rey la. buñ ko doon def léegi tey ñu bi nga xamante ne tey jii Sénégalais vraiment euh, li ñuy def nii chauffeur yi li ñuy def en fait rey nit la. parce que ñaata doomu aadama dee ci hmm, accident. Euh, munoo def accident tey suba nga ne ndogalu yàlla la gannaaw suba nga dem utiwaat beneen oto war a reyaat ñeneen. léegi nag ci li ci loolu noonu laay ñëw. Mhm. affaire wu oto yi. Mhm. Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor seeni oto di recruter chauffeur. nañuy recruter chauffeur yi nga xamante ne non seulement am nañu permis jàng nañu dawal normal ba mhm. pare mën li ñuy def correct parce que tey genre Madické yi ngay gis wengal tubéy di dawal <laughs> nga wax ak ñoom duñ la faale baa nga gis leen ñuy saagante ay ndey mhm. loolu kooku mënul mënul yaru ku ku yaruwul ci làmmiñ mënoo yaru ci oto mhm. benn deuxièmement ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor transport en commun bus yi ñu xool leen tegal leen ay charte nii ngeen war a dawee nii ngeen def ak nii discipline dafa war am te discipline munoo ko ñàkk bëgg dawal oto. Mhm. loolu mënul nekk am na ñoo xamante ne bu ñu toogee oto bi di dawal li ñuy concentré mooy volant bi ak tali bi. te du bus wax te est-ce que xam nga asiba bus yi dañ koy modifier mhm. buy ñëw je pense 60 wala 50 places lay ñëwee mais 50 yooyu dinañ ko mottali ba mu nekk 80 places déjà loolu rek yan nga bus bi lu mu àttan dañ lay yeb 80 places ba pare Versailles am na ñoo xamante ne ay bidon lañ ciy teg bidon 10 litres kii bidon 20 litres dawlin li lañ koy teg la ci léegi xam nga bu fekkoon ne sax dañoo yem ci loolu mu neex. Mhm. mais duñ ko def de xam nga ñuy def. Mhm. dañuy jël euh, fii ba porte bagage yi. Mhm. ñu dugg ci ay bagage ba mu fees. ñu jóge ci loolu ci kaw ñu duy ay bagage yi ba bagage yi. am auteur boo xamante ne tey jii bis bi bu defee nii rek. bay buy daw day wéy. après ñu nekk quatre apprenti ku nekk lang. ka la ñu war a bàyyi am na bus bus waru am apprenti. xam nga la la war a am receveur bi nekk ci oto bi comme bus yi nii. ak chauffeur bi. fooy dem nga ni fii laay ci nga dem transport en commun bi jarul kii euh, ay kii nu mu traité apprenti apprenti waru am xale xale indiscipliné nañ ci la ñuy jànge la plupart ci ñoom waxuma ñëpp nag la mhm. plupart ci ñoom ci la ñuy jàngee sàcc la plupart ci ñoom ci la ñuy jàngee reewande parce que da ngay gis sa moroomu yaay nga daan ko ay euh, sànni ko ay loxo fii ay euh, wala di xëccoo ay di xëccoo nit pour ñu dugg waaw car rapide yi nga xamante ne dañoo màgget màgget ba nee xurut yow boo moytuwul da ngay tataanos. dañ ko a fi war a génne maa Aïcha ban année ban at am na ci sept places boo xam ne keroog dama koo dugg danoo takk moteur bi ci suuf damaa yéemu sax bi ma wàccee laa ko gis ma ne man nag wax dëgg yàlla nag yennee xaru la président xam nga lu waroon a teg mati. Mhm. comme la yaay jàmme tegoon gàmbi ku jaay te yàmbaa mën nangu seen kër jaay ko génne la dëkk bi. waaw xale yenn taj. ci la ci bari. wuti lu nu def ku def accident ma rey la mhm. wala ma tëj la mhm. à vie nangu sa permis nangu sa permis ci àdduna mhm. moo fi waroon a am xam nga lan moo yàq Sénégal da ngay def da ngay corriger nit ñu ñëw di ñaan intervention naan xam naa diw demal ca diw ñu daal di dem ci kooku day yomb su ëllëgee mi ngi mel ni ñi fi nekk di nit Mm-hmm. ñu daal di gaawantu yóbbu wutal leen kayiti dof. Mm-hmm. wala ñu gracier leen. waaw complot wax ne tayuñu ko. tayuñu ko dafa dof. Mm-hmm. fekk yow say mbokk ngi toog.